salaamaaleykum mbokk déglukatu réew mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre di jotaay ndaw ñi fii ci réew mi FM lay amee mercredi bu jot 15h euh, jàpp 16h euh, euh, tey ñu ànd ceeg Fanta Camara di PDG si compagnie Isahel ak Mohamed Kane moom coach la en entrepreneuriat suñu thème quelle orientation leadership et féminin quelle place pour les femmes dans l'entrepreneuriat donc émission bi dañ ci am ànd ak waa Afrimac Afrimac di ab projet d'échange d'entreprise de technologies euh, d'entrepreneurs et d'innovateurs euh, ci ay domaines euh, yoo xam ne day impacter économie Euh, ci îles Canaries ak Afrique de l'Ouest ñu ko financé à hauteur de quatre-vingt-cinq pour par le FEDER au titre du programme opérationnel de coopération territoriale Interjec ñoom liñ ciy jublu moo di promouvoir entrepreneuriat euh, des entreprises le leadership l'autonomisation des femmes euh, dañuy réaliser itam ay série d'actions promotionnelles visant à sensibiliser motiver former comme genre émission yi ni mel renforcer itam participation jigéen ñi ci initiative économique ak entrepreneuriale jàpp nañu euh, les femmes peuvent changer le monde impacter également euh, positivement euh, le monde moo faal balaa ma lay jox kàddu gi ma remercier euh, partenaires yi Sergio Yoré président du cabildo de Fuerteventura Euh, Doña Lola Garcia Martinez nekk première vice-présidente du Cabildo euh, de Fuerteventura Carlos Gutiérrez Robiana directeur Afrimac 2 Momar Dian Diop moo di président association des Sénégalais euh, de Fuerteventura ainsi que tout le personnel du Cabildo de Fuerteventura moo faal ma jox la kàddu bàyyi la nga ñëw ci balaa Euh, voilà maa ngi leen nuyu di nuyu ñu ñuy déglu saa su nekk euh, si euh, Rewmi FM seen émission Espace Jeune donc di jaajëfal suñu ay partenaires yi basé depuis fi nga xamante ne mooy Espagne ñu dégloo foofu di ngeen di jaajëfal ci seen engagement yi ñu jël pour accompagner jeune entrepreneurs yi. Euh, donc euh, en particulier les femmes donc leen jaajëfal saa su nekk ci ànd bi ñu ànd ci euh, émission bi di Espace Jeune. Mhm. di remercier ñu ñuy suivre ci 97.5 ak suñu page Facebook Rewmi FM point com di remercier Léon mi féete ci partie technique bi Fanta Camara ñi am mbégte contenté dalal la fii suñu plateau ma Madame Sylvie bonsoir Modou. Euh, c'est du temps d'honneur pour moi aujourd'hui euh, d'être euh, votre invité pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Euh, je salue aussi vos auditeurs ainsi que voilà tous tous tous ceux qui euh, tous ceux qui vous suivent. Et aussi euh, bon, moi je me nomme Fanta Camara, je suis je suis PDG d'une entreprise qui, qui, qui est spécialisée dans dans la terre et l'environnement, mm -hmm. dans l'énergie voilà, mm -hmm. dans, mhm. dans, tout ce qui est ce qui est ressources naturelles en quelque sorte, parce que je suis étudiante en énergie mine environnement. Mmh. Donc, euh, comme vous, comme vous l'avez constaté, euh, dès que je suis arrivée, vous <laughs> m'avez demandé dans quel domaine je suis. Mhm. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine, parce que bon, on dit entre guillemets que ce sont des métiers masculins. Bon, je ne le trouve pas comme un métier masculin. Je me dis que mm, non, il s'agit juste d'une passion. Quand tu es passionné d'une chose, faut faut le faire. Mhm. Faut le faire et que après voilà, bon, que euh, ça soit dur. C'est vrai que bon, aucun, aucun métier n'est facile quand même. Ça, il faut le dire. Mm-hmm. Aucun métier n'est facile, mais quand tu es animé d'une passion, quand tu as cette envie de, de, de réussir dans ce métier, voilà, tu, tu pourras vraiment braver tous les obstacles qui seront présents mmh. devant, devant toi. Mmh. Donc, c'est. Euh, Yahoo, vous êtes PDG, c'est mmh. Compagnie SAM, qu'est-ce que c'est Si ça signifie Senegalese Earth Environment. En anglais. En anglais. Mm -hmm. Qui veut et environnement si compagnie, y a beaucoup de branches, quand même. Il y a la partie euh, énergie, la partie BTP. Et aussi, il y a la partie magazine, qui est un magazine euh, de la durabilité, mm. qui traite spécialement du sujet sur la terre et l'environnement. Mm. on fait des interviews, on fait, euh, on traite des actualités,

Euh, à cause des changements climatiques. Donc c'est euh, en quelque sorte une fenêtre euh, qui permettra aux jeunes aussi d'avoir une éducation environnementale surtout. Le déclic, c'est qu'on on sait qu'au Sénégal, c'est vrai que l'UCG fait un travail excellent. Mhm. Mais moi, je me dis que euh, ramasser les ordures, c'est bien, mais ne pas en produire, c'est mieux aussi. Mhm. Donc, nous, on fait en quelque sorte que, voilà, la jeunesse, euh, voilà, et une éducation environnementale que que les plus jeunes savent que voilà, quand on mange un, un bonbon par exemple, après l'emballage, il faut, il faut, il faut le mettre dans, dans une poubelle et quelque, en quelque sorte. Donc, euh, il euh, y a plusieurs rubriques dans le magazine. Mm-hmm. Il mm -hmm. y, a, y a la rubrique euh, Citizen par exemple où on met en on met en valeur les activités menées par certains citoyens verts sénégalais mm -hmm. afin qu'ils inspirent les, les, les, les plus jeunes, nos lecteurs, afin qu'ils se disent par exemple aujourd'hui je vais faire comme Sylvie qui a été euh, sur le magazine parce que Sylvie voilà est partie de rien mais quand même bon c'est vrai que on te paye pas quand tu quand tu bon, euh, c'est pas un truc que tu fais pour, pour avoir quelque chose mais tu le fais pour l'humanité en fait quand tu ramasses des ordures quand tu sensibilises tu le fais C'est vrai que le magazine, c'est à but lucratif, l'entreprise, c'est à but lucratif, mais en dehors de ça, il y a cet aspect patriotique. Mm-hmm. Cette envie de, voir un Sénégal vert, de voir un Sénégal propre, un Sénégal durable, comme on dit magazine de la durabilité. Donc c'est ça, en fait, euh, qui, est la chose la plus euh, passionnante dans, ce conflit en quelque sorte. Mm-hmm. parce que ñi lay dégg la plupart dégguñu tubaab de. <laughs> d'accord donc euh, entreprise bi. femme yi ngay influencer ñu ngay jël tey comme modèle. Mhm. la plupart dégguñu français. waaw nga foog nga leeralal la li nga wax. ok jéemal la. d'accord léegi magasin bi euh, li ko tax a jóg mooy euh, fexe ba am benn Sénégal bu set mbalit yi ñu sànni fu nekk ñu jéem a am benn culture benn. benn yar naa ko waxee yar yar boo xamante ne da lay xamal ni que tey soo lekkee ba pare lii da nga ko war a def si poubelle bi soo rombee kenn voilà même su fekkee moo la mag mais nga nekkoon sëñ bi bon soo paree nga def ko fii voilà foo sànni li si loolu mën tax a jug en quelque sorte. Mm-hmm. entreprise bi aussi euh, voilà yaa am na am na partie énergie aussi. Mm-hmm. pour euh, foofu dañuy dañuy dañuy def ay différents service quand même. Mm-hmm. mais euh, en, en tout cas euh, on met plus l'accent sur la magazine en parce que déjà Sénégal bëriwul ñu bëgg lire loolu tamit c'est un mhm. donc euh, au début y a beaucoup <laughs> ay wax français ça. Mhm. au début ñu bëri ñu doon ñu bëri ñu doon wax naan ma. Sénégal du ñu lire donc yow soo soo defee magazine bi kan moo koy lire lii perte temps la déjà bon nit ki mënoo ko changer moom nu mu nit ki bu tàmmee su lekkee sànni si mbedd wala bu saw si miir nekk yow yaa jug pour changer ko. Mhm. c'est vrai que c'est euh, man xam naa ni que du yomb quand même nekkul loo xam te na ngay ñëw rek ni wax nit ki mu changé mu changé mais dañuy jéem def lu ñu lu ñu ci mën quand même waaw def lu si mën ba même suñu fekkee ñu duñu atteindre objectif bi mais. dinañ mën a voilà chacun fas sa part. Mm-hmm. ba pare kenn mën nañu gis ni ñu koy defee mu jéem ko defee neneen par exemple. wala mm-hmm. comme ça impact bi gën a am solo. loolu moo ñu ci gën a tax a jóg. Euh, entreprise bi man ak sama benn xarit ñoo ko ñoo ko kii ñoo ko ñoo ko ubbi moom génie civil la def ingénieur génie civil la donc moom on fait tout ce qui est architecture construction voilà plan maison bâtiment la partie BTP bi. également man énergie laay def donc on fait tout ce qui est vente panneau solaire on fait des bilans énergétiques des bâtiments c'est-à-dire benn kër bu ñu ko gisee mën nañu def bilan bi xool kër gi bon. par rapport à l'énergie de la maison Est-ce qu'il faut monter des panneaux Est-ce que comment faire pour économiser l'énergie mhm. xamante ne dañuy économiser ndox. Mhm. dañuy économiser dañuy am ay tali yu set kër yu set. vraiment pour lépp daal pour ñëpp mën a mën a dund ba pare mën a permettre génération bi di ñëw tamit ñu mën a dund parce que bu ñu jeexalee lépp lu ñu yor. Mhm. bu ñu jeexalee énergie bi jeexal ndox bi. saltel dëkk bi yëpp ekk suñu doom yi suñu sët yi nañ am benn Sénégal bu ñu mën a nekk comme ñun ni ñu koy dundee ekk ñoom dinañ ko mën dundee noonu donc ñun ñu waruñu di lor ñeneen ñu war a ñëw mm. et même ça yamul ci affaire de énergie mais dem na ba ci côté ressources naturelles aussi actuellement on sait bon fii ñaari at dañuy exploiter pétrole ak gaz mm. donc foofu tamit ñi ngi essayer xool mine yeeg pétrole yi comment on va faire ba ñun dina ci jëriñu mais aussi du ñu du mën a jeexal du ñu pallier suñu suñu ressources yëpp. Mhm. voilà dinañ permettre génération bi di ñëw aussi mën a jëfandikoo loolu noonu parce que aussi ça doit être durable. Mhm. ce n'est pas uniquement pour nous mais c'est pour aussi nos enfants. Mhm. nos petits-fils et voilà. génération à venir. Okay. macha euh, allah man la question que juste damay ñëw ci euh, li nga xamante ni moom mooy wàllu exploitation ressources yi ñuy wax parce que euh, kii di exploitation dinañ xam ne dina am xam dina am ci côté bi muy day jógee ci yenn entreprise yi est-ce que yéen ñi yéen seen entreprise dina tenir en compte naka la mën a mën a appuyer yéen seen seen seen côté andi benn mm-hmm. appui ci ci entreprise yi ne leen boo leen defar li nga xamante ni moom mooy exploitation bi dina am ay déchets yoo xamante ni mm-hmm. dina dem ci géej gi dina yàq li nga xamante ni moom moom géej gi ak environnement bi na dem ci tefes gi parce que ndox mi dina génn lool est-ce que yooyu yëpp yéen yéen a ngi ciy xalaat euh, fii ak li ñuy wax naan dinañ exploiter suñu suñu euh, ressources yi yéen côté bi nga xamante moom moom mooy euh, protection de l'environnement est-ce que yéen yéen a ngi ciy bàyyi xel baax. waaw xam nga c'est toujours difficile même quand on dit que on est énergéticien en même temps on est environnementaliste on se dit que tu es contradictoire mm. parce qu'on sait que le pétrole xam nga ni moo tax si euh, COP 26 bi sax on on s'est dit que dañuy arrêter financement énergie fossile yi. Mhm. parce que xam nañ ni que loolu day yokk déchets yi si monde bi. et que ça mhm. ça ça ça ça ne lutte ne participe la lutte contre le changement climatique. Mhm. donc euh, côté boobu d'une part c'est vrai mais d'autre part aussi pays yooyu noonu dañuy arrêter énergie fossile bi ñoom si pétrole nañ kii nañ jëriñu ba am benn économie bi ñu am actuellement kon ñoom sans avec ou Euh, bu ñu bu ñu bàyyi énergie fossile bi te gis nañ gis nañ découverte yi et tout essence si loolu lañ mën a jàpp pour mën a yaakaar benn benn benn benn développement. pour mën a concurrence ak yeneen pays yi. Mhm. léegi mais dañ koy defee dañ koy xanaa dañ koy fas yéene changer xool nan la ñuy def ba. certes dana am ay déchets ça moom ñëpp xam nañ ko. Mhm. mais ñu fexe ba fu muy am déchet bi fu muy amee sur place ñu essayé xool comment comment comment récupérer ça sur place afin que du mën a egg ci population bi. ñu xool tamit gaz yi effet de serre bon je sais pas saa ñu ngi nekk di xalaat peut-être yenn système yi ñuy mën a kii innovation parce que lu am moom dañuy jéem innover rek di jéem a xool mais ñu ngi si xalaat quand même. Hmm. comment faire ba on pourra exploiter mais avec peut moins de déchets ou bien les déchets seront récupérés les déchets pourront être utiles après même. Mhm. Tout déchet est utile. il y a le recyclage, il y a beaucoup de choses qui pourront. Mais vous, euh, en, tant que femme, est-ce que dina yomb parce que au Sénégal si on parle d'ingénierie, si on parle de yenn mhm. on, passe aux hommes te bu ñu góor ñi dañu yaakaar ne mhm. de force. voilà métier boo xam ne góor yi lañ ci gën force alors que ingénierie je pense que euh, dina am côté boo xamante ni ça n'a rien à voir avec la force ça voir avec liggéey ouvrier yi donc yow ba perception boobu nga am ci ci euh, pays africains yi bu ñu nee yenn travaux yi duñ ci duñ ci mën a gis jigéen ñi mm-hmm. euh, donc ndax yow loolu di nga di nga faral di si sa biir liggéey euh, pensa nga am ay marché yoo xamante ni daanaka la plupart dañ jox entreprise yi nga xamante ni c'est sécurité par les hommes dal na ma keroog rek benn marché bu yaay yaa moom entreprise ma ne ko waaw mu ne ma jigéen ñi est compétente parce que yéen la plupart du temps seen moroom yi ay marketing ngeen gën a mën ay e-commerce ma ne ko man da may am ci man confiance nga jox ñu ko soo suñu amul confiance tamit nga dem jox beneen góor ba ko ñun en fait du ñu dañuy teg entreprise ba pare voilà di di di jéem bon c'est certes que c'est c'est difficile ça faut le c'est très difficile am na jigéen ñi vraiment lu ñu dund dafa métti trop. Hmm. on nous discrimine négativement tellement que mooy loolu du duñu ñu wóolu si côté compétence ñoom duñuy xool côté côté sexe nañuy xool ki hmm. jigéen ki góor la. Hmm. alors que man je me foofu dañ ko war a xool côté compétence yi ak passion bi nit ki nan la mën a indi ay solution loolu moo ëpp solo man d'après moi. résultat bi moom dañu war a di xool mais Sénégal c'est c'est le contraire. ba pare aussi moo tax loolu moo tax tamit xam naa jigéen ñu bëri dañuy daw genre secteur yi. soo xoolee ñun bëriwuñu suñu classe dañuy compte jigéen ñi fa nekk mhm. école bi sax ay école bu mënti doon dañuy compter jigéen ñi nekk si secteur bi. mais est-ce que pas un problème de débouché aussi parce que euh, am na ay enseignement yoo xamante ni ça ça ça tire longueur lu mel ay médecine lu mel ne comme seen genre mais est-ce yooyu jigéen ñi ils veulent loo xamante ni ça ça ça euh, agent bu gaaw boo xam agent rapide boo xamante ne bu ñu génnee automatiquement dañu mën a am xaalis ni da ngay da ngay continuer di spécialiser wu à chaque année mm-hmm. ñu ne am na benn euh, perfectionnement bu am ci ci wàllu énergie nga tu es obligé encore de de faire pour pour nga mën wu tam mën a nekk facteur. Hmm. facteur yooyu il faut le dire énergie moom mënuñu ne voilà jàng nañ pare nañ parce que même boo eggee ba ba pare sax mais boo gisaatee beneen affaire boo war a mën kiyaat da nga leen continuer di jàng man moom loolu mooy sama loolu mooy sama passion en fait. Mm-hmm. je me dis que fii ba dix ans peut être dinaa continuer si di recherche sur énergie. Mm-hmm. même ma nekkee ingénieur sax mais dinaa continuer. Mm-hmm. di xoolaat énergie comment laa si gën a jàngee et tout ça. parce que man passion bi moom moom moo ëpp moo ëpp solo je suis très passionnée par le domaine. donc du coup je ne sens pas la difficulté. et les discriminations ne me ne pourront pas me faire reculer aussi. quelle que soit la difficulté voilà je mm. je, je fais face. noonu la est ce que est ce que moom utiliser est que c' pas euh, sous-estimé au, au lieu de parler de discrimination des des des femmes. Bon. c'est euh, on peut dire sous-estimé mais aussi d'une part en fait ça ça ça, ça dépasse en fait vraiment parce que même même même dans les même dans les séminaires ça se voit on préfère on préfère même inviter inviter des hommes ci panélistes panéli ñu bëri ay ay deux benn jigéen ñaari jigéen nga gis foofu noonu donc loolu lépp peut xam naa bañ a wóolu jigéen bi loolu lépp ay discrimination la tamit dañu xamante dëgg. xeetu discrimination la sax xeetu discrimination la Fanta yéen seen euh, groupe bi euh, ma dellu seen si compagnie. Mhm. en quelle ngeen ko créer et puis lu leen motiver ngeen taxawal ko ak yan jafe ngeen jànkonteel parce que xam naa ñàkkul. Euh, bu ñu ko créé yàggul ci vingt et bi nañ ko créé. Mhm. ça a été mois de mai. mois de mai nañ ko créé mois de juin la nekk SARL. Mhm. yàggul mais euh, bon c'est vrai que y a des difficultés bon je vais venir d'abord sur li nga njëkk a wax déclic bi ku la expliquer sànq rek dama toog xalaat ni que voilà entreprise yi bëri nañ Sénégal trop ma ne man ban ban côté laa war a mën a ñëwee indi lu bees quoi loo xamante ni dina mën a amal njëriñ nit ñi si beneen côté du nekk ay peut-être comme jigéen ñi tàmm def ay e-commerce wala ay marketing yenn yooyu noonu ma ne comme man man si domaine voilà tout ce qui est énergie mine environnement nan laa mën a def ba entreprendre ce domaine boobu noonu nga xam dina ma jëriñ mais aussi du nekk sama njëriñ du yem si man kese mm. dina mën a jëriñ aussi ñeneen ñi ñuy euh, bénéficier wu samay service et tout ça. Mm. donc voilà euh, <laughs> ma toog ma xalaat ma ne bon euh, Sénégal y a des y a d'abord les ODD qui ont été fixés. Mm. loolu moo njëkk a déclic bi. mais gisuma bëriwul entreprise Sénégal yoo xam ne dañu naan man dama créer sama entreprise uniquement pour pour aider les Nations Unies. à atteindre tel ODD ou tel ODD. après ba ma xoolee liste bi de 17 ODD j'ai repéré certains ODD certains ODD yoo xamante ni sama domaine la nekk. Mhm. comme quand on parle de l'eau quand on parle du changement climatique le monde entier. Mhm. quand on parle de la vie la vie terrestre il y a beaucoup yoo xamante ni tey je me dis que entreprise yi dañoo war a xool ku nekk domaine bi nga nekk nga ne man bii laa war a mën a jéem a pour aider. waa na Nations Unies si loolu parce que nekkul Nations Unies kese ñoo ko moom mais monde bi mhm. donc laa xoolee mu gis ni que côté environnement bi war naa ci mën def dara côté énergie am na côté eau mu ne domaine yooyu yëpp bëri na entreprise la laa ko war mën tëddee ba nga xam ni day day englober tout ce qui est terre environnement foofu mu njëkk xalaat Sénégal euh, terre environnement sénégalais mu ne TES c'est pas facile à prononcer. Hmm. déjà on va dire TES ou bien ñi naan bon je vais encore voir un nom beaucoup plus captivant. Hmm. loolu laa xalaatee anglais bi anglais bi noonu ñëwee. Hmm. ma xam ne que si bon déjà si ça traduit une vision. ça te permet de voir ça te permet de regarder donc loolu. c'est voilà ça, ça, en plus ça ça sonne ça mieux que voilà yeneen donc loolu loolu moo tax ma créé ko ma ko créé nag après ma ne bon léegi. quand on environnement il a beaucoup de domaines il y a l'agriculture il y parce que terre li dafa bëri. Mhm. comme exploitation minière ma la doon wax sànq pétrole bi yëpp si la bokk. mais man man dañuy dem step by step di xool nànk-nànk yan lañ mën a commencer après yan lañ war a mën a égaler. actuellement génie civil bi nañu nekk def BTP bi te ngi xool nan lañu mën a changer construction yi. Mhm. indi benn façon construction on est toujours dans l'innovation. Mhm. qui existent dans certains pays même au Sénégal il y en a mais bëriwul. Mhm. donc loolu lañ bëgg di di nekk di xool et tout sax et aussi côté environnement comme la ko waxee sànq rek pollution bi man moom gën a moo gën a kii motivé. d' accord ma lancé wu si loolu noonu ak yeneen. yeneen aspects yeeg yooyu. d' accord dinañ ju dellusiwaat ci yooyu yëpp euh, ñu ngi en ligne ak Mohamed Kane coach en entrepreneuriat euh, Mohamed ñu ngi lay nuyu. Euh, allo bonjour. bonjour si na ngeen def. monsieur Faye monsieur merci je vous suis avec beaucoup de bonheur. Mm-hmm. avec votre invité aussi c'est vrai qui est dans un secteur euh, plutôt difficile pour les femmes. Mm-hmm. loolu moom dëgg la. <laughs> d' accord yow déjà loo koy wax en tant que femme parce que nee na y' a pas mal de difficultés parce que c' est un secteur boo xam ne góor yi lañ ciy gën a taamu ko jigéen ñi mu am ay discrimination dégg nga ko sànq euh, benn marché boo xam ne xaw nañ ko ko bañal. parce que mm-hmm. jigéen la. waaw euh, parce que dafa am ay métiers yoo xam ne pendant longtemps dañu considérer ne métier góor lay gën a mën a yombee. loolu ba tey sax mi ngi ama ah, dans beaucoup d'industries da nga fay dem lu ci ëpp ay góor rek nga fay gis. Mhm. loolu peut-être euh, dinañ ci mën waxtaan bu si kanamee. Mhm. mais dama ko bëgg a encourager pour won ko ne quelqu'un comme madame Rokhaya Sall Mbaye qui est la directrice générale de Minex, mmh. qui est dans les mines. C'est encore, euh, je crois qu'elle doit la connaître, elle est dans les mines, c'est la seule femme d'ailleurs. Mmh. C'est une entreprise, euh, en, c'est un secteur en oligopole, il y a très peu d'entreprises, mhm. mais c'est la seule femme qui est dedans et qui fait de très très belles choses. Donc c'est juste dire que Gour Barne, Jigen Barne, mais un certain niveau, il faut que Wane sa bop, sinon doo ci génn. Mhm. am na solo léegi yow ban orientation nga ko mën a jox ban conseil nga ko mën a jox. waaw conseil bi c'est c'est d'abord que ñoom dañu war a euh, comme dañuy war a def plaidoyer li ci ëpp femmes yi li ñuy def dañ koy def euh, di ci làqatu wala buñ koy def dañ ci ànd ak une certaine hargne qui fait li may wax toujours sama xarit ci euh, défendre la promotion de la femme li ci ëpp dañ ciy ànd ak xaw ma ni ñu koy waxte encore dañ ciy ànd ak xol mm-hmm. te yenn saay mën nga am nooy waxee xëy na ñi si des ñoom duñ ko gisee yow ni nga ko bëgg gisee mm-hmm. alors que juste l'idée c'est de pouvoir discuter pour s'en sortir mm-hmm. la nécessité pour les femmes euh, d'émer d'émerger c'est une nécessité boo xam ne kenn mënatu ko weddi bi may état du Sénégal di confier en 2004 la mission d'élaborer le guide de la femme entrepreneur d'ailleurs c'est le premier guide de la femme entrepreneur qui a été fait en Afrique mm-hmm. j'ai eu l'honneur de l'avoir écrit pour féminin on en a fait je crois une ou deux autres versions benn bi c'était avec les Français beneen je crois que c'était financé par euh, la la je crois mais bon quoi qui en soit taxaw nañ ci on s'est rendu compte après que femmes yi taxaw nañu ñu ngi góorgóorlu bu baax mm-hmm. léegi l'idée c'est d'aller discuter avec les industriels mm-hmm. au-delà de ces fac de ces histoires de de lutte pour le féminisme pour euh, je sais pas la promotion des femmes et tout qui est une très très bonne chose donc jàpp naa ne ku nekk dafa a am liggéeyam mm-hmm. ay event c'est-à-dire ay événement pour waxtaan ak les décideurs dans le secteur industriel parce que il y a pas que le secteur d'ailleurs de, de l'industrie euh, minière, etc. Il y a le secteur de la pêche. Il y a, il y a beaucoup de secteurs où les gens, normalement, ils, des, femmes, vraiment, parce que les femmes sont très compétentes. Mm -hmm. Il y a énormément d'ingénierie. De plus en plus, les femmes ont, sont dans, sont dans l'ingénierie. au Sénégal. Et il y a de plus en plus de, de, de femmes qui sont effectivement dans, dans euh, dans le froid, tout ça, etc., dans la mécanique, qui font des très, très belles choses. L'idée, c'est maintenant de faire des actions de sensibilisation auprès des responsables industriels pour wan leen ne une femme peut faire exactement ou même mieux parce que dans l'industrie souvent on a besoin de précision te foofu jigéen ñi ñoo gën a taxaw góor ñi mhm. mm. mais monsieur euh, Kane pour yow c'est quoi le problème lan mooy facteur bloquant bi à chaque fois yenn euh, liggéey yi à chaque fois dañ ci gis ne góor lañ ci gën a mën sentir que li nga xamante ni moom mooy jigéen ñi par exemple bu ñu nee marketing dans les entreprises boo nee nekk jigéen tu as beaucoup plus de chance pour euh, être embauché qu'un homme mais a dëgg la tuuti góor lañ a gis mm-hmm. pour yow problème lan lan moo waral gars di di benn distinction ci entre góor jigéen ci wàllu liggéey waaw loolu comme man damay def marketing mën naa ci tontu <laughs> c'est juste une histoire de perception c'est-à-dire que perception la rek gis-gis la perception la boo xam ne dañ ko am ci métier dañuy jàpp ne comme marketing ay accueil la ñoom seen jigéen moo gën a taxaw lool tamit c'est lié à des préjugés liés à des liés à notre culture parce que dañuy dañ yàgg jàpp ne mm-hmm. liggéey bu diis góor moo ko war a def liggéey ay accueil ak ay toppatoo ay nit jigéen moo ko dàq cest à loolu c'est lié à notre culture donc du loo xam ne euh, dañ ko fari wala yooyu mais c'est lié à notre culture ñun noonu lañ noonu la ñu doon dundee sauf que ci diggante bi y a eu beaucoup de progression dans la société moi j'ai appuyé la SAED et beaucoup d'autres organisations par exemple dans les zones rurales pour que les hommes acceptent que les femmes les femmes aussi sont des productrices mm-hmm. qu'elles doivent participer au même titre que les hommes notamment dans dans dans la création de, de richesses et dans et dans l'épanouissement de la de la famille mm-hmm. yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne faut ñu convaincre nit yi ci àll bi par exemple ci dëkku ci dëkku rural bi laa bëgg wax il a fallu beaucoup de de travail de de sensibilisation d'expérimentation pour que les hommes se rendent compte que quand les femmes gagnent plus on vit encore mieux on vit encore mieux Mhm. loolu ci mais il loolu mënoo ñëw rek di ko wax noonu wala ngay def ay conférence de presse wala nga ciy bind ay livre déedéet da ngay dem waxtaan ñi di prouver leen il faut sànq prouver parce que changement de culture la changement de perception la du loo xam ne dafa yomb te du loo xam ne dafa dafa gaaw aujourd'hui beaucoup mhm. ouais mais en parlant de culture est-ce que vous faites la culture de la société wala culture bi nga xam ne directement à la société ndax culture bi ñu wax culture bi Non, non, ça n'a rien à voir avec la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est les règles, en fait de vie qu'on qu'on qu'on qu s'impose en fait en, en, en, entreprise. Non, non, non, ça, ça n'a vraiment rien à voir. Je parle de la culture sénégalaise en tant que telle. Mm-hmm. Ou que dañ naan góor day dëgër euh, pour dire un peu quoi. Voilà, mm-hmm. xam ne bon loolu lañ daan wax quoi. Mm-hmm. Tey ce qui se passe c'est quoi? C'est que dañuy jàpp ne boo jëlee jigéen. Euh, xëy na yenn lii dafa naan dafa diis du ko attan foog ñu jàppale ko euh, xëy na jëla wax ni samay doom euh, foog ma jàppale leen bu benn doomam xëy na feebaree dafa naan dootuma mun ñëw wala mu toog ba si ak ni a dama ëmb sàngam nangam il faut mu jël congé maternité sàngam nangam leneen li ci des xëy na tëgër tëgër bi ñuy nekkee dañ ciy xaw a yërëm jigéen ñi donc yenn saa yi boo xoolee loolu yëpp da nga naan mais kon est ce que loolu du mu nekk facteur de faiblesse pour mhm. alors si j'ai bien un homme je peux avoir. toute sa compétence son engagement et sa force pour cent pour cent loolu mhm. perception bu nit yi am la c'est pas une réalité en fait c'est une perception Maintenant c'est aux femmes de démontrer qu'elles sont aussi efficaces que les hommes c'est aussi le même cas pour le travail de nuit où les gens se disent que bon jigéen mu journée mais guddi gi doo ko mën liggéeyloo xëy na ci këram du ko bàyyi xëy na d'accord merci euh, monsieur kan peut-être euh, un petit mot rek pour jéem a sensibiliser jigéen ñi ci entrepreneuriat. waaw pour wax ne dafa am waxu wolof boo xam ne wax bu jar a bàyyi xel la. Hmm. góor baax na. jigéen baax na mhm. j'ai bien ne aimé euh, quand Kumba Gawlo Seck doon way way boobu mu ne euh, tubéy ñaari loxo moo koy takk mais ñaari sër tam mooy takk sër gis nga dama bëgg jigéen ñi xam tey ne et c'est très important que sunu mbokk jigéen ñi ak sunu mbokk góor yëpp xame ko noonu mhm. gis nga ànd dignité moo koy yore ànd nawante moo koy yore. Mhm. ànd ngor moo koy yore. Mhm. nu ñu ànd ànd boo xam ne kii dafa naan mooy indi xaalis kii di liggéey ci kër gi te kiy oh. liggéey ci kër gi kenn du gis valeur li muy liggéey. Mhm. te tey toog ci kër dafa xaw a xewi tuuti ngeen baal ma ci wax ji. tey dañu nekk en tout cas en zone urbaine boo moo tax may wax même en zone rurale les hommes se rendu compte que bi ñu joxe ay financement femmes yi ñu commencé di defar seen i jardin et ba nu may sama mbokk Fuuta bi soxna yaa ngi bay ndawal bi dafa neex léegi diwlin rek jullit rek ngeen di génne ndax yëpp mat na donc tey jigéen ñi dañu war a di lu di wane seen bopp wane seen bopp nag du ay xeex ndax àndandoo la mois je ne crois pas à l'égalité entre l'homme et la femme mm-hmm. je crois à la complémentarité entre l'homme et la femme mm-hmm. te jigéen ñi à chaque fois ñu wane seen bopp wane nañ ne ñoom mën nañu góor ñi dañ leen war a respecter ci loolu léegi ñoom ñoo war dem sensibiliser tous les secteurs pour ñu nangu ne jigéen ñi elles sont souvent dans le domaine dans les domaines techniques elles sont souvent même plus compétentes que les hommes mm-hmm. elles sont souvent plus résistantes que les hommes bëri dans l'industrie dans la mécanique dans partout dans le dans le management de la qualité dans beaucoup de choses maintenant il faut aller sensibiliser euh, les, ces gens-là, les convaincre que les femmes peuvent faire ce job-là. Et je crois qu'en quand on leur donnera leur chance, comme dans plusieurs domaines, elles vont, avoir leur place très rapidement et avoir de très bons salaires ou excellent, en tout cas d'excellents revenus. Et nous en serons très fiers. Okay, merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. maa ngi félicité bu baax seen seen invité bi di leen di remercier ci ci ni ngeen di doxalee. Mhm. Mhm. nii la ñuy yeewee xale yi pour ñu góorgóorlu ndax liggéey moo yore réew leneen liggéey kese moo yore réew maa leen di gërëm di leen di sant bu merci di ko gërëm bu baax euh, Mohamed Kane xelam màcc lool euh, ci entrepreneuriat euh, Fanta ñi ngi woon di wax ci jafe-jafe yi ngay rencontrer ci seen entreprise bi mhm. déglu naa bu baax lu mu wax mhm. mais je me dis que actuellement on est en tant que femme ñu mhm. ay défi la quoi li mu wax nii que dañoo war a ay waaye dañoo war a kii c'est que ay défi yu ñu war a la en tant que femme donc euh, plaidoyer ñun ñu ngi si comme ni ma waxee sànq rek am na sama benn directrice démb bu doon wax loolu devant devant le président mhm. carrément ñu ne ko il faut que ñu am benn fonds bi appuyer les femmes dans le secteur mhm. te il faut que aussi fasse de telle sorte que les femmes seront reconnues à leur juste valeur en fait kenn du leen kenn du leen discriminer kenn du leen xeeb comme comme voilà comme comme ni ñu faral di amee mhm. donc euh, loolu ay combat ñu war a mëne la en tant que femme il faut que aussi ñu jug ñu voilà mën nañ ñuy def ay résultats jigéen bu am entreprise ci côté énergie côté mine essayer voilà client bu am jéem ko satisfaire à un à un point où client bu fu mu dem dina ne jigéen la waaye man franchement du ma liggéeyal kontaan naa ci mhm. donc loolu bu yàggee gars yi xam ne que carrément jigéen ñi def ay ñi def ay mhm. donc je me dis que lutte bi lenn la mooy travail avoir des résultats efficaces donc euh, voilà après sensibiliser aussi faire des plaidoyers parler et voilà surtout aider nous aider entre nous nous en fait entre femmes surtout loolu fa am solo mais jigéen da ngay gis ku nekk xam nga jigéen rek affaire de clan wala ñu góor ñu rawee en fait. Mhm. góor ñi sont toujours en groupe voilà tout mais jigéen xam nga ku ne dafay jéem a jaay ne moom moo gën a kii mais je me dis bu ñu amoon ay association ay groupe am na am na kenn ku créé comme ay dajom ñaa créé na women in mining ay jigéen yu nekk dans les mines. Mhm. voilà ñu regroupé wu pour pour bokk benn combat ay voix yu bëri baax na mais benn voix kese moo gën a fort en fait ñun ñu dajalee seen voix wax wax fenn moo gën a fort que ku nekk di wax côté côté am quoi. Mm-hmm. donc yooyu itam xam naa ne tamit mën nañu jàppale si si si combat bi donc. Euh,

góor ñi jigéen góor ñi ñu ngi koy créer secteurs yi nekk góor ñi dañuy fësal seen bopp dañuy génn dañuy jàppalante mais jigéen ñi dañuy nekk seen benn côté rek ne ñoom il faut génn fësal ko euh, lu ci mel ne ci yenn création yoo xamante ne c'est c'est à yooyu mm-hmm. jigéen ñi am nañ compétence mais duñ leen gis ñuy fësal seen bopp donc ñoom seen seen faiblesse foofu la ñàkk fësal seen bopp boobu la plupart dañuy dañuy mel a dañ naan damaa ragal média damaa ragal télévision dama alors que boo demee ba dugg ci yenn ne ci euh, géologie ci wàllu environnement il ngay génn nit ñi di xam li ngay def parce que euh, daa leen loo xamante ni euh, gaa ko dafa nekk loo xamante ni compétence nga war a jaay mais aussi da nga ci war a mën a impliquer société bi parce que implication bi ngay def société bi moom mooy waral yow a fës

bokk benn benn benn combat bu ñuy xeex je me dis que affaire dina gën a yomb en fait mhm. te comme li nga wax ni kese bon bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu kiyee suñu bopp gars yi xam ñu du yem suñu kese mais loolu moo ëpp solo aussi mhm. yeneen jigéen bu ñu seetaan dina ne ah ma su ma màggee dinaa mën def énergie comme Fanta parce bon gis naa ni moom ñu ngi ciy góorgóorlu te gëm na si boppam te ñu ngi siy réussir dañu mhm. toogee suñu coin kese yeneen jigéen ñi duñu xam du ñu xam ne que métier bi am na jigéen ñu si nekk di si réussir parce instant yi changement mais am nañu bëri ñoo xam ne gisaguñu loolu parce que comme ni nga ko waxee rek jigéen ñi fasaluñu seen bopp en fait. Mhm. donc loolu aussi benn bu ñu war a mëne la. en parlant de financement yéen seen euh, entreprise bi est-ce que vous avez bénéficié euh, d'un financement voilà. pas encore quand on a déposé on a participé à des concours mais résultats yi génnagul. Mhm. jusque jusque là ce sont sur des fonds propres. ci yeen ci yeen ci gën a seen seen ay financement parce que bëri na ay entités yu fi ne yoo xamante ne dañuy financer dañuy financer les femmes ci benn euh, ay DER ak est que déposé ngeen yooyu yëpp déposé nañ si y a un concours qui est ñu lancé récemment par ADPME mm-hmm. ñu lancé nañ si foofu mm-hmm. candidaté nañ si concours bi mm-hmm. y a aussi beaucoup de beaucoup concours qui qui qui euh, bon cherchent des jeunes innovateurs qui ont des entreprises. Mmh. Et ils ont dit quand même qu'ils encouragent beaucoup plus les entreprises portées par des mhm. Donc du coup, voilà, on a tenté notre chance et on attend. Mhm. donc entreprise entreprise bu bees la ay 5 6 mois la amagul donc mhm. xam naa loolu moo tax instant yi gars yi xamaguñ ñu il faut que ñu prouver d' abord. gën a wane que mais à travers le magazine quand même ça avance magazine bi ñu ngi interviewé ay ay ay autorités ay euh, ay nit ñoo xamante ne ay porte de voix lañ te xam naa à travers ñoom dañ mën am benn canon benn. fu ñu mën a jàpp mën a voilà mën a gën a divulguer suñu message gars yi gën ñu xam quoi instant ñuy nekk di gën a kii suñu bopp pour gars yi xam ñu. Mm-hmm. Mm-hmm. actuellement yéen qu'est-ce qui vous manque pour seen entreprise bi décoller quoi. il manque des fonds ça faut le dire. il mm-hmm. manque des fonds parce que domaine bu ñu nekk ça demande beaucoup de fonds. c'est pas comme e-commerce nga xam da ngay créer jën sa benn marchandise de cinquante mille exposé mu jeex mais ñun y a y a déjà génie civil il faut que nga matériaux yi énergie tamit bilan ma lay wax nii rek appareil bu koy def. ça ay cinq mhm. de ça il y a beaucoup beaucoup beaucoup de matériaux qu'il nous faut magazine bi il nous faut des machines imprimantes il faut des ordinateurs de qualité tout ça mais quand avance petit à petit on est en train de de mobiliser nos ressources et aussi. espérer que dinañ dinañ jot ay financement et tout ça. mais est-ce que vous travaillez avec les collectivités locales lu ci mel ne maires yi parce que yéen euh, euh, projet yi mën def ci côté environnement ci yu mel je pense que vous pouvez travailler directement avec les les maires yi est-ce que jëm ngeen approché wu ci côté boobu communes yi ngir mën a au moins liggéey ak yenn projet ndaw yi nga xamante ne peut-être que ñoom au lieu ñu koy jox ay ñeneen mag ñu jox leen ko yéen ngeen ngeen liggéey ko euh, pour au moins ngeen mën a am reconnaissance ci kanamu maires yi. ak li nga xamante ne loolu naa am solo trop dafa guñ ko waaye dinañ ci mën xalaat. xool nu comme comme li nga waxee rek bon localement su lay gën a yomb en fait. Mm. localement bu ñu reconnaître rek après dinañu mën a ubbil ay bunt yu bëri. Mm. donc loolu dinañ si dinañ si dinañ xalaat bu baax mais commencé guñ ko. Mm. suñu marché am yëpp ay marché extérieur la en fait. nekkul nekkul nekkul suñu zone. pour le moment. Euh, yéen entreprise ngeen yore est-ce que yéen a ngi xeex chômage yéen a ngi embauché ay ay jeunes. oui on a onze employés pour le moment. magazine bi am na ay journalistes. génie civil bi aussi am na ay am na ay maçon yu fa nekk on a un exemple ay quand même photographe tout ça développeur pour qui gère suñu site yi yooyu yëpp quand même on, on, on embauche mais aussi moi quand même je mets plus d'accent sur les jeunes et moi je je je ne mise pas je fais pas d'âge en fait duma nekk par exemple comme 30 ans lay embauché wala comme 50 ans je je demande juste les compétences même soo amoon 15 ans 20 ans man ça va donc loolu aussi pour montrer que actuellement Sénégal lu ñu tardé la Afrique sax laay wax loolu si la bokk. gars yi du ñu xool compétence bi égal plus l'âge wala sexe alors que dañoo war a xool compétence nit ki moo ëpp solo. Mhm. mais yoo demee yeneen pays comme ay Amérique yooyu noonu foofu xale yi dañ leen dañ leen dañ leen di jox benn sans chance ñu prouver ñoom seen mhm. seen mënin. Mhm. ñu wane ñoom nan nan lañ mën. mais Sénégal doo doo gis loolu ñu ne. expérience. voilà dix ans quinze ans voilà. loolu nag boo waxee benn jeune boo xamante ni mi ngi doog am bac wala ko xamante ni. voilà am na passion bi mais joxoo ko fu mu exercer benn expérience la nan lay amee 15 ans. te mm-hmm. expérience parce que il faut commencer benn de commencer ko jëlee mu si yow 2 ans mu dem si kenn am fenn 5 ans bu yàggee dina am 15 ans expérience. Mm-hmm. donc ñun foofu la ñu gën a miser. Mm-hmm. voilà moo tax euh, journalistes yi même ce des jeunes photographes ce sont des jeunes. mais quand même forme une équipe très dynamique aussi. voilà et on mise sur l'excellence et voilà. Mhm. jusque là ça va quand d'accord mhm. euh, yow boo doon euh, évaluer sa entreprise bi actuellement euh, comment elle se l'entreprise c'est vrai que ba nga ko créé mhm. léegi yàggul mais. ça porte pas mal. pas mal quand on a on a plus ou moins des revenus. Euh, employés ñu ngi jot seen salaire chaque mois. waaw ñu ngi salaire.

yu ñuy euh, réutiliser waat ba nit ñi mën koo consommer euh, projet wu désalinisation bi nga xamante ne mooy géej gi ñu fexe ba jël ndox mi euh, defaraat ko ba nit ñi mën koo naan aussi aussi est-ce que jàpp na Sénégal dafa nekk en retard ci projet yooyu donte bëgg na ko ak les eaux de pluie eaux de pluie système mm-hmm. comme tu l'as dit on est on est ensoleillé soleil mm-hmm. y a y a vraiment les choses sont là yeneen pays nga xam ne amuñu naaj instant yi sax ñooñu gën a kii ñooñu gën avancé si domaine boobu ce qui n'est pas ce qui fait mais je me dis peut-être c'est un problème de sous-développement parce que yenn système yi pour nga déployer il faut aussi des, fonds il faut des moyens et aussi peut-être y la main-d'œuvre qui manque d'une part parce que comme on, l'a dit on l'a constaté il y pas beaucoup de gens qui sont dans dans, solution mooy joxe mooy il faut qu'on se forme dans les dans ces métiers là. Mhm. qu'on forme dans l'éolienne qu'on se forme dans le solaire. qu'on forme dans les systèmes d'irrigation comme ni nga wax nii nga xam ne dañuy am benn main d'œuvre bi. on est Sénégal a beaucoup de jeunes donc jeunes yi bu ñu ci jëlee ñoo xam te ne ñu bëri ñu formé ci domaine boobu noonu. ñu am ay étranger peut-être wala état bi jéem a développé benn somme pour lool loolu dina mën nekk en fait. Mhm. mais il ñu am compétence il faut que yi nangu.

entreprise yoo xamante au moins dina mën a joxe ay mhm. énergie ci ci à côté même sax c'est pas au niveau national mais au niveau local au niveau départemental ñoom ñu joxe courant au moins pour un peu euh, donc euh, un peu li nga xamante moom mooy euh, problème énergie bi am au Sénégal ci ci fànn c'est que j'ai dit tantôt donc il faut qu'on se forme d'abord ñu dugg ci domaine bi ñu duggee ci domaine bi après ñu jéem a ci domaine mais le problème c'est l'entrepreneuriat l'accès au au fonds fonds de mooy bloqué ñëpp loolu aussi c'est c'est mhm. mm. yaa di euh, oui Fanta tey yaa ngi ci domaine boo xam ne c'est pas facile pour ne pas dire que c'est très difficile c'est pas facile surtout boo nekkee jigéen euh, ñàkkul bëri na jigéen yoo xam ne bëgg nañ embrasser ay métiers yoo xam ne góor leen ko gënoon xamee yow ban conseil nga leen di jox. que ñu seen bopp rek. il faut soit confiante qu'elle soit passionnée d'abord. ñu ñu wóor leen ne que métier bi bëgg nañ ko. bu ñu ko bëggul bëgg si dugg rek pour xam la moo ci nekk. dañuy ragal naka la ko nit di gisee wala famille yi sax ñoo la naan déedéet doo def métier boobu. bon loolu Afrique la quoi c'est ça ça c'est un problème africain comme ni ko kii waxee woon rek culture culture africaine la. Mhm. mais nit ki soo soo bëggee li ngay def quand même man je me dis que. amour boobu moo gën a fort que préjugé yi moo gën a fort difficulté bi. Mhm. donc sax sentir en fait ñeneen ñoo gis naan la yow de yow. dama laa yërëm yow da ngay guddee wàcc yow li ngay def nii yëpp mais yow tout ça sentir affaire parce que tellement tu es passionné mhm. voilà parce dafa am solo trop mais boo duggee si benn domaine par exemple nga ne damay def énergie parce dama gis fanta di ko def gis naa ni bon ñu si góorgul xam ma xool nan la dem ba xam ba xam am na difficulté amul difficulté du fa yàgg mhm. du tax am un mois ndax amul passion bi mhm. day ñëw mu metti benn je me dis que quel que soit préjugé et tout ça dina kii ba pare foofu tamit je je un message aux, aux parents aux encadreurs que ñuy que ñuy bàyyi xale def leen passion surtout te aussi des aussi euh, serait bien parce que des am na xale yoo xam dañoo am problème choix problème choix yan domaine ñoo domaine de de de d'avenir yan domaine ñoo domaine ñoo xam te ne am na bëri domaine yoo xam te ne instant yi nii ce sont des domaines yoo xam ne fii ak ay dix ans kenn dootu kenn dootu si waxati mm. domaine yooyu ñu ngi disparaître nànk-nànk da am na ay jeunes yu di def si formation yooyu te xamuñu ne domaine yooyu noonu bon waxuma ko pour leen décourager leen mais ñu si mën a am comme comme comme ñu soxla mais instant yi au moment où on parle de l'exploitation du pétrole dans deux ans. Mm-hmm. on parle des mines on parle des ressources tout on parle des énergies je me dis que ce sont yoo xam ne ba si duggee mënoo chômer en fait. Mm-hmm. parce que y a y a la matière en fait gars yi dañ koy soxla donc su ñëwee nga imposer sa soit tu crées ton entreprise soit nga dem si ay yenn entreprise yi am stage tout ça jéem am expérience. Mhm. loolu mun mënoo si mënoo si mënoo si perte en fait mais boo demee je vais pas euh, wax ay ay yenn yenn domaine mais quand même y di des yoo xamante ni sont pas des domaines d'avenir en fait. ay temps amoon na amoon na amoon na kii amoon na solo trop mais instant yi jamono ñu toll. voilà avec les ODD qui sont là il faut faut voir des domaines yoo xam ne sont voilà domaines porteurs en fait qui euh, sur lesquels on peut se, on euh, pour avoir un développement mm-hmm. des domaines qui affaire de améliorer l'éducation wala en tout cas qui font reculer le, le, diminuer le taux de famine dans, le monde mm -hmm. permettre au monde Sénégal d'abord au Sénégal d'avoir bien bien eau wala en tout cas comme ni nga ko waxee sànq euh, euh, inondation yi tout ça indi ay résultats ay solutions par rapport aux par rapport à mhm. énergie aussi ñu xool comment améliorer gars yi gën a énergie. Mhm. nan la ñuy def ba installer solaire éolienne xool si yenn mines aussi nan la ñuy def ba or bi tout ça pétrole bi aussi. Mhm. ak yeneen domaine mais y' a y' a les affaire géologie mais l' informatique aujourd'hui c'est un c'est un domaine très très puissant. domaine boo xamante ne boo si nekkee tey aussi mun na a l' intelligence xamante ni en voilà ubbi seen bët encore pour pour xam quoi pour xool. ça je lance au nouveau bachelier aux gens yi nga xam te ne instant yi amaguñu amaguñu amaguñu passion. amaguñu luñ bëgg a def. dañ mhm. def ay recherche jël seen temps dugg si net bi. Mhm. tapé xool les domaines actuellement yi nga xam te ne fii ak 2030 2040 sont les domaines yi nga xam ne ku si nekkul doo mën a sant sa bopp si monde bi. Mhm. parce que moo gën tamit ngay jàng ay dix ans quinze ans pare doo am liggéey. pare voilà entreprise du la jël ñu naan la yow amoo amoo kii professionnel wala yow amoo compétence tel tel tel wala yow li nga xam. Mhm. soxla wuñ ko. Mhm. y a beaucoup de domaines qui sont archaïques. Mhm. donc loolu tamit c' est c' est c' est très important. gars yi bu bëggee réussir. mais est ce que amul aussi ay ay ay compétences yoo xamante ni je peux dire que ce sont anticipative au Sénégal parce que nga jàng benn kii boo yoo xamante ne nga pare génn ñu la lii mën a ko liggéey Sénégal il faut nga dem en Europe parce loolu yow jàpp Sénégal ñu koy def plongeur boo ko defee tey Europe ngay dem pour jéem am liggéey tout ça le temps Sénégal

fii ñoo xam da ngay toog cinq ans pour nekk ingénieur pour ça donc c'est une formation de qualité mais gars yi xamaguñ ko donc y a beaucoup de comme ni ko waxee yoo xam te ne il du temps encore. d'accord Sénégal mën a xam domaine. merci Fanta a ci rek nos partenaires. <laughs> duma la ah, euh, sa xalaat rek pour nos partenaires Afrimat. Afrima que dañuy financer ay ay jeunes dañuy dañuy accompagner entrepreneurs. les femmes jigéen ñi lañuy entre lañuy accompagner. accompagner voilà que comme ni ma waxee rek ñu jàppale jigéen ñi nga xam te ne ñoo nekk si yenn secteur yoo xam ne comme comme suñu genre secteur bi wala yeneen yi nga xam te ne daal bëriwuñ jigéen ñu seen ñu si nekk. Mm-hmm. gën leen a encourager. Mm-hmm. comme ça ñun duñu reculer parce que am nañu bëriwoon dañuy bàyyi loolu tamit foo foo foo le dire. bu demee tey département géologie UCAD beaucoup de femmes duñu duñu jeexal seen huit ans yi. Mm-hmm. géologie dañu la plupart dañuy abandonné parce que dañu naan leen bon tellement dañu leen sous-estimé ba dootuñu centre seen bopp si métier bi. Mhm. j'en connais une je l'ai sur Facebook. moo mhm. xooli profil la gis ko ni géologie la def quoi ma ne ko kon actuellement tey géologue mu ne ma bàyyi naa ko bi yàgg mën naa ci communication. ma ne ko mais comment tu peux avoir un bac nga nekk u mu ne ma j'ai fait là-bas sept ans huit huitième année bi laa jeexalul. Hmm. ma bàyyi ko dem defi communication. parce que tellement que après mënu woon continuer après voilà te aussi elle s'est hmm. te xam nga belle famille bi aussi duñu mën a comprendre tout le temps parce nekkee géologue tout te dugg foog ñu sensibiliser. sensibiliser c'est surtout vers les familles affaire yooyu noonu belle famille yooyu parce que boo tax ñu bëri dañuy xaar ba pare doog a marié wu parce que loolu c'est un facteur. Hmm. donc seen seen partenaires yooyu noonu bu ñu mën xool peut-être yan solution la ñu mën a apporter. Mhm. peut-être côté fond wala côté def ay séance de formation pour gën leen sensibiliser. Mhm. gën a gën a wax waxtaan ak ñoom. Mhm. pour sotti leen xalaat wax leen que ni que voilà lu métti métti nañ jàpp xam ni que voilà dina dina baax peut-être voilà loolu loolu dina dinañu arranger. merci ma bàyyi la nga tàggatoo. donc euh, maa leen di maa leen di sant maa leen di gërëm vraiment ça a été un plaisir. parce que voilà c'est toujours c'est toujours. bien de parler de sa passion de wax yow li ngay def gis que am na ay nit yoo xamante ni pare nañ pour déglu la si waxtaan si ak yow xool yenn solution la ñu mën a apporter pour pour nga mën gën a mën a am épanouissement. Mhm. si si li ngay def. Mhm. donc maa leen gërëm si loolu te aussi comme li ma ko waxee sànq rek maa ngi euh, lancer un message aux femmes en général peut-être quel que soit domaine bu ñu nekk même bu nekku affaire de géologie tout ça mais bu ñu sentir difficulté nañ xalaat ni que euh, le fait que ñu nekk euh, bon. benn infime partie bëriwuñ ci domaine bi loolu dañ la war a pousser à ce que ñu reste foofu noonu persévérer pour mën a inspirer ñeneen parce que boo fa kiiwul doo mën a indi ñeneen ñu koy def te ñeneen bu ñëwul def ko kon métier boobu tôt ou tard day disparaître te pourtant mën nekk métier boo xamante ne mën na permettre Sénégal mën na permettre monde bi mu avancer tellement mm-hmm. il faut que ñu persévérer on le fait pas pour nous on le pour l'humanité en fait, pour inspirer les autres. Fanta Kamara, PDG Si Company SARL. Euh, merci également à Mohamed Khan, coach en entrepreneuriat, euh, di euh, remercier également suñuy partenaire Sergio Yoré, président du Cabildo de Fuerteventura, Donia Lola Garcia Martinez, première vice-présidente du Cabildo de Fuerteventura, di remercier également Carlos Gutiérrez Roquiana, euh, directeur 2 à Momar Diop, président de l'Association des Sénégalais de Fuerteventura, le personnel du cabinet de Fuerteventura, du Warni Euh, suñu prochain numéro ak suñuy partenaire euh, docteur Awa Bokar taal euh, dina bokk suñuy invité ngir ñu waxtaan symposium des femmes de la diaspora bi nga xam ne war nañ ko mm. amal le 13 14 ak le 15 janvier fii ci Dakar lay doon Mor Fall waaw voilà donc di woo suñu partenaire Afrimat moom il a reçu jot na message jot na lépp donc moom il saura comment accompagner les femmes mm-hmm. pour ñu mën a concrétiser seen ay projet di jaajëfal ñëpp ñun déglu merci di gërëm mboolem di mbokk déglukat di gërëm Léon Mendy ñu ci technique bi